Sénégal Plus. Plus let's get it. moom bu leen ko fi nga am nag ku bi nooru sër garage gellu a sama kanam di jox li nga lekk nga may jaxase sama booy jël bi ci jox la nga sama ex wax ko ba ma may sama rakk mi pédophile li ma fekk قلب هنا غير مطعم وكوب اندمج تدك سمير ممثل تك اندمج جود وبدا ياكل لنا سجل قلنا بالي شو بتقلنا بالي جديد لو كير يا مثن يا ام جي كاب ده يدور عن سجل فلا دفيات تخلى سباق وبين بين نقل يوم اللوكو بوم سبايل ابيكو كلاس بداي قال فانا تمني تدك جود دي كود دال دم جلو تخلو خيخ وبوم قال جوجي كاب تبا جخاي اتش كول لال دنگا انفانتي كريستوف كولم كوبي وزاد نو بوكسن بلوك دم سيستمتي كي كوم كولم سجوبي كات ني كوسكون دورو قال دولا كيف فوك نالجي سون اون كونساي باي دي كالسون يي فرانسا من نيك نيغا خيت دي ني راي نيك بوزا فوت moto sa def mun a fen da ngay def sa son di fen pour gars yi déglu la maan ñàkk inspiration moo tax defal naa la fi song yóbbu ko Sénégal plus mais séntuwuma si dara parce que sama booy nga comprendre nga Roko Zo Killer from Cartel du Nord from Jaxaay what's up Déranger Gang, you know the vibes. Hey. ah yow da ngay topp ci rab bi rab di la gëlëmal dam ko bàyyi woon mel na ko gën a mën ñun duñu màndi ci baari fokk ñu tekk ci aar bi est-ce que du bañ jàmm tax dëkku ñu jàmm gën léegi fu xarit mën a jaar ni nga noonu du fa jaar ñi la déglu néew mel ni noonu du fa jaar am na ñu siiw di rey am na ñu reye pour siiw mais weddi yàlla bëgg xaalis ana lu ko fi jar ku ñu topp di yéeg tas nga sa tomb ñëpp laay foog dara du yomb pour wax dëgg sa gaay xamuñu dara matuñu biri pétal ko ci ci ñoom ne mooy bomb di lu nakar yi léegi dañ ko jomm biire lay am si te du jong carrière bi doxatul de mais son yegg na puut ay yàlla mi ñu sàkk ñun dañoo sonn e maa ngi ci vol bi di tukki yaa ngi ci sereet man du ma léeb parce que fen ma ko tere di rendi di gën a set a takkuñu dereet labelu machine la rek ay génne cere dañuy siiw tekki ñi ma gëmul wóor nee na képp ku sori sonnoon rek wéetal sa mbokk dañu tëju joob bind son yu dóob pour muy clair te bu génne bomb li bomb ni que la bind son yu xóot est na ma topp sama bàmmeel amul négocier ko ni nga fay ma li ma ameel te rab bi laa loob ko moom laa mën a bàkkoo te moo may daaneel fi ko fi jaay soof sa taatu jël si la tàpp talatuma ay détails mënoo ma jéet ndax dama jàpp ba déglu samay son yaa ngi seetu te bu ko tàmm rappeur yi a ñàkk jom noonu du man sama gaale rek pour mën a génn guddi laay bind son yi lëndëm ba jant bi fenk maa ci sama bopp sama bidéo bu feeñ ma feeñ succès di ñëw ñu may copier mel ni karaw ak leen si digg géej la ñu nekk duñu wéeru si kenn waxal ma fan si ni bag bi lañ jëli si teen nigga dama ratte ko ko laaj ne ko maay sama di bind lu lay dugg maa ngi caabi succès pour tijji samay buntu di dund dund undu képp ku la laaj ne ko maa sama rugu képp ku la laaj ne ko maa sama rugu képp ku la laaj ne ko maa sama rugu ak Chicks képp ku la laaj ma nigga Drapeau Jaxaay welcome to my city you know the fucking vibes yo Cartel di Noro Sub Check. Inside music. Let's get it. Hey, wow, drop mo jahay sa kaw Tas harap yung pumuyang gumasag terbiyego bakaw Mala kapitan ng rapper yung never mayego ci suf Boy maling ginabanit ka ganyan na ka na sufuf Nakdamayaga di huf Hey, li dama tàng si ñoom ko ma laajte booy maa ngi tim noo keesa nga bal ngaam chaque dama ci foog seen dirim tim maa ngi ak lu mbeer bi taalibi mboo ji baay fall am maama la min dañu fier ci mbëmbër fu mu ay malamay fi di la it konteel ñaata it konteel di nga gis seen bopp lépp laay faj mel ni dispensaire yee jaxaay ci kaw ñu si des nañ toog fii léppay mat dara du cëg dugub na jarul di forcé sa bopp ma yëg ñu ko cëg ay kilo ko cëg yangoy yarul nga teel ko toog seytaane waxul dëgg wante yàq na xel xel bi tàmmul di wax dëgg sa papa di dëgg son bi ni ma lépp ni kel bàyyi ma fëgg sama dënn lii mooy menace wàññi la yokk ay cadence ma nekk ci son excellence te ñeewuñ France fier ci doon booy jaxaay lii am nañ classe ñëpp laay foog kenn fi des ku ma fi gisul maa ngi sama siri te ñëpp laay koj bind lu xees fay la ma birig birig sama birig bàyyi sa xel bi lëndëm ci kala may kocc moo tax maa ngi bind lu xees te ku fi bandi bandi lu ci géem bi ne yem balaa ki leen di teew def ci pare dàq gi leen ma ne nañu dem sama kiñ dala comme taatu gëlëm lañu tànn keneen duma tàkk di fay kabilaan dafa leer benn boy duma yéem maa fukk eh dir la cin ba nga daanu ci leeri sa parce que réew nañ torop jamay ko ay fara di bendo di bendo ba 19 naraay jub ba yàlla ba kenn ñu të ragal bu juddoo cité di nga dee da nga dox du ñu ko ab OG booy jaxaay si lépp PA 1 ba di 7 gëmuñu seen univers danga toog sama koñ nga am na si dee booy never ma bokk si ñoom ay you know the vibes big up jaxaay 1 ba 17 26 sa plan jaxaay ay drapeau jaxaay si kaw tasaare fépp lu yëngu ba secteur bi yegg ba kaaw man la capitaine nu rappeur yi never ma yegg ci suuf booy maa leen gën a bandi te gën a kana su fuuf ay jot dama yëkkati drapeau jaxaay drapeau jaxaay ndax dama fier ci doon koy jaxaay drapeau jaxaay jot na ma yëkkati drapeau jaxaay drapeau jaxaay drapeau jaxaay jot na